ma mais ku ma jàppale rek laa bëgg ndax xale laa instant yi fu ma nekk pour ma lekk sax rek garaaw mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah je vais démarrer mon allocution en français pour permettre à son excellence monsieur l'ambassadeur d'en saisir le sens mais également délivrer le message de son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'ensemble de la communauté internationale. Je voudrais dire que nous n'avons pas été conviés à cette euh, manifestation. La dernière fois, Monsieur l'ambassadeur de Palestine est passé à mon bureau. Nous avons échangé Et je le taquinais en disant qu'une manifestation avait été organisée l'avant-veille et nous l'avons appris bien après la manifestation. Il s'en était désolé et m'avait promis de me mettre en rapport avec euh, le comité d'organisation. Et c'est hier soir seulement que j'ai vu les annonces de la tenue de cette manifestation. Et ce matin, j'ai appelé Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui annoncer mon intention, même si je n'ai pas reçu d'invitation officielle, mais ce n'est pas une critique, rassurez-vous. En tout cas, mon intention d'être présent à cette manifestation. Le président de la République m'a répondu dans ces termes. Il m'a dit qu'il faut impérativement que vous nous y représentiez et que notre statut de président du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien ne doit pas se limiter seulement à des déclarations, mais doit se manifester également par des actions et une présence sur le terrain. Et donc je suis ici sur instruction de Monsieur le Président de la République. Je voudrais dire que on a suffisamment rappelé la position du Sénégal sur euh, cette injustice que subit le peuple palestinien depuis les années 40. Le Sénégal a porté énormément d'initiatives. Je rappelle qu'en 1971, le président Léopold Sédar Senghor était à la tête d'une délégation composée du président Mobutu Désir du président Aïdjo du Cameroun et du président Goen du Nigeria. Immédiatement après la guerre de jours, où toutes les initiatives de négociation avaient échoué, le président Senghor avait conduit une délégation qui s'est rendue en Israël, aux Palestine, avait discuté avec feu le président Yasser Arafat et la première ministre de l'époque, Golda Meir, laquelle initiative avait abouti presque à un accord sur le Golan, sur le Sinaï et sur la Cisjordanie. Il a été convenu que l'ambassadeur d'Israël allait, lors d'une allocution sur la tribune des Nations Unies, présenter cette solution africaine à l'initiative du Sénégal qui devait consacrer la paix définitive. Malheureusement, c'est trente minutes avant cette allocution que l'ambassadeur d'Israël avait reçu un coup de fil de Golda Meir lui intima l'ordre de renoncer à annoncer cette solution. C'est dire que la fourberie dont Israël a toujours fait preuve dans la gestion de ce dossier ne date pas d'aujourd'hui. Le Sénégal a continué et c'est ce qui a justifié en 1960, en 1975, euh, lors de la création de ce comité, que toutes les initiatives aient concouru à désigner le Sénégal comme président de ce comité, laquelle présidence est assurée par notre pays jusqu'au moment où je parle sous la direction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Beaucoup d'initiatives ont été prises par le Sénégal et par tous les régimes successifs, jusqu'à la dernière qui avait euh, abouti au vote d'une résolution en 2016, un des euh, intervenants l'a rappelé, qui avait condamné Israël par rapport à l'extension de ses colonies sur les terres palestiniennes. Et donc, si aujourd'hui, le régime nouveau sous la direction du président Diomaye Faye, décide de continuer cette œuvre, il ne fait que respecter une tradition. Mais ce qui sera nouveau, c'est que nous avons décidé d'aller au-delà des déclarations, des initiatives au niveau des Nations Unies, mais d'être très présents à côté de nos frères palestiniens pour mener ensemble ce combat. Monsieur l'ambassadeur, Je vous disais dans mon bureau que je ne regarde plus les télévisions internationales parce, parce que les images qui sont diffusées sur la Palestine me sont insupportables. Tout le peuple sénégalais, j'allais dire toute l'Afrique, parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique a toujours été au premier plan de ce combat. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que deux États africains, le Cameroun, je crois, et l'Érythrée, qui n'ont pas reconnu officiellement l'État de Palestine. Tous les autres États ont reconnu l'État de Palestine, ont été parmi les premiers à l'avoir reconnu. Nous sommes ici dans le cadre d'une manifestation de soutien au peuple palestinien et ce qui semble le plus visible, c'est que c'est l'aspect religieux. Cette religion que nous partageons avec la majorité du peuple palestinien. Je voulais dire simplement que pour combattre une injustice, de tout ce qui participent à un combat contre l'injustice, les motivations peuvent être plurielles. La motivation religieuse en est une, et ce qui semble être prégnant ici, dans cette assemblée. Mais on peut participer à un combat euh, contre l'injustice pour d'autres raisons. Parce simplement, on ne supporte pas l'injustice, indépendamment de ses croyances et de ses convictions. On peut y participer pour des raisons ethniques, des raisons euh, familiales. On peut y participer pour des raisons géographiques. Mais on peut y participer par humanisme. Et l'aspect religieux ne peut pas être enlevé, en tout cas ne peut pas être dénié on ne peut pas dénier l'aspect religieux dans cette problématique qui se pose et qui se pose depuis très longtemps. Certains historiens voudraient l'enlever totalement. Mais le problème n'est pas seulement religieux. Il est éminemment également politique. Il est humain simplement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans la stratégie, il nous faut penser à être le plus large possible Le président Senghor, qui a pris toutes les initiatives que nous saluons, il n'était pas musulman. Il n'était pas tenu de le faire. Pourtant, il l'a fait. Et depuis que cette nouvelle crise a démarré, les actions les plus visibles, je parle des plus visibles, je ne sais pas ce que font les pays arabes, mais les actions les plus visibles ont été initiées par l'Afrique du Sud, qui compte 2% de musulmans. Les actions les plus visibles ont été initiées par les pays d'Amérique latine, allant jusqu'à rompre radicalement les relations diplomatiques et à considérer qu'il s'agissait de génocide et de crimes contre l'humanité. Là où beaucoup de pays considérés comme musulmans sont restés à faune. Et c'est pourquoi la dimension politique dans le combat que nous menons est extrêmement importante. J'irai même beaucoup plus loin, puisque il y a matière, quelquefois, à relativiser la dimension religieuse. Des personnes, des milliers de personnes de confession juive ont violemment manifesté contre l'extermination qui se passe actuellement en Palestine. Nous l'avons vu aux États-Unis, nous l'avons vu en France, et quelquefois même de temps en temps en Israël. il faut réunir tous ceux qui se disent non à cette injustice. La motivation des autorités israéliennes n'est pas forcément religieuse. Nous avons un Premier ministre dont le pouvoir aujourd'hui dépend de cette guerre. La survie politique dépend de cette guerre et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays. C'est ça les motivations. Accompagné maintenant par des ultra-orthodoxes, entre guillemets, qui malheureusement ont conduit le monde et particulièrement la Palestine dans ce chaos que nous vivons. Mais ça interpelle également notre conscience à tous. Nous sommes dans un monde particulièrement hypocrite. Un monde de deux poids, deux mesures. Un monde où tout ce qui nous chante la démocratie et les droits de l'homme sont ceux aujourd'hui qui appuient Israël, qui l'arment, qui lui donnent les moyens d'envoyer de, euh, des bombes sur des populations innocentes. Nous sommes dans un monde où les principes qu'on nous vend, qui sont décrétés à gauche, à droite, n'engagent que ceux qui, qui y croient. Mais tout cela interpelle également enfin la conscience des musulmans que nous sommes, des Africains que nous sommes, des croyants que nous sommes, de comprendre que personne ne nous fera à notre place. Si on en est là, c'est lié à nos multiples divisions. Nous sommes incapables de parler d'une seule voix. Même si on nous laisse entre nous, nous sommes là à nous tirer dessus, à nous chamailler, partant de détails insignifiants. Je suis plus croyant que d'autres, j'ai la vérité infuse, les autres sont dans l'ignorance totale, nous devons distinguer les aspects culturels des aspects politiques de, de la démarche qui doit, doit être la nôtre pour créer des blocs qui nous permettent de nous défendre. Et je parle au double sens de croyants que nous sommes, quelle que soit notre croyance, et d'Africains que nous sommes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Les Africains sont sur les réseaux sociaux en train de se tirer dessus, sur des détails insignifiants alors que nous sommes à tous les niveaux les derniers de ce monde. Et pour les croyants, c'est la même chose. Et pourtant, pour les musulmans que nous sommes, le Coran nous avait déjà avertis des conséquences de la division. Chacun peut avoir sa façon de voir, qu'on soit sunnite, chia ou je ne sais pas, à l'intérieur des sunnis, qu'on soit euh, orthodoxe, soufi ou tout ce qu'on veut dire. Mais politiquement, nous devons transcender ces questions-là si nous voulons compter dans le monde, si nous voulons faire face, si nous voulons exister, en tant que croyants, mais en tant qu'Africains également. Je parle dans les, dans les deux directions. Et ce qui arrive aujourd'hui à la Palestine, qui, qui arrive ailleurs, parce qu'ailleurs aussi, il y a des musulmans qui sont martyrisés. Comme il y a dans d'autres zones du monde des personnes qui sont martyrisées parce que simplement elles sont chrétiennes, qui sont attaquées par des bandes armées qui se disent musulmans, qui ne le sont absolument pas parce que le musulman ne se comporte pas comme ça. Mais si l'on veut faire face à toutes ces situations il nous faut transcender nos petites différences Le monde aujourd'hui fonctionne sur la base de la puissance et des blocs. Pourquoi le monde entier, le monde occidental entier, ne peut aujourd'hui, ne, peut faire, ne peut pas faire grand-chose face à Vladimir Poutine Pourquoi Parce qu'il y a la puissance. Pourquoi on ne le ferait pas par rapport ou vis à -vis de la Chine Parce qu'il y a la puissance. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes Et quand on a les moyens d'aller vers la puissance, quelqu'un a parlé tout à l'heure des a fait la dichotomie entre les palais des pays musulmans et la rue. C'est peut-être vrai, mais il faut relativiser beaucoup de choses. La question qu'on se pose, c'est que les pays musulmans qui ont des moins est-ce qu'on ne les a pas trop habitués au luxe maintenant De sorte que personne ne, peut, ne veut plus perdre ses avantages et personne ne veut plus prendre des risques. La vraie problématique se pose à ce niveau-là. Et c'est pourquoi je réitère toute notre douleur et notre peine face à cette situation que, vit nos, que vivent nos frères palestiniens. Nous le dénonçons en tant que croyants, mais nous considérons qu'il faut avoir une approche très politique. Le pape François a dénoncé, a condamné et a réclamé deux États viables. D'autres convictions religieuses l'ont fait. Il faut aujourd'hui rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique, qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël, isolement politique. Si la CPI a pu condamner pour crime contre l'humanité le premier ministre israélien actuel c'est parce que l'Afrique du Sud a fait ce que nous aurions dû faire tous pays musulmans pour obtenir ce résultat-là donc soyons inclusifs dans le combat ratissons le plus large possible et je pense que nous pourrions atteindre le résultat tant souhaité qui est d'arrêter cette barbarie humaine validée cautionnée par certains pays occidentaux, pas tous. Nous avons reçu le président de la République et moi-même le Premier ministre espagnol avant-hier. Le Premier ministre espagnol et son gouvernement ont fermement condamné et bokk d'autres gouvernements. mbokk yi ma tënk ci kàllaama wolof wax rek nii dama fee teew ci turu son excellence le président de la république tey ci suba bi ma xëyee dama ko ne gis na ñu ne dañuy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 jox ko bâtiment personnel am nekk fi ñuy liggéey mu ne ma mu ne ma loolu du mënul dépendre ci coobare Sénégal parce que mbirum Nations Unies la kon nañ ko delloo Nations Unies may wax tamit ni wax nañu sànq ci Nations Unies waaye loolu it nañ ciy def ndànk ndax Nations Unies dafa xaw a doy waar nu muy doxee ni mu bindoo diggante assemblée général bi ak conseil de sécurité bi ñaar yooyu bokkul conseil de sécurité nations unies mooy problème bi ndax fa la teg juróomi réew kese ñu tiim àdduna am sañ-sañ di décider pour àdduna bi yépp assemblée générale mun na jël résolution léeg mu dem ci conseil de sécurité États-Unis ne d'accord ma ci ñu bloqué ko foofu foofu la problème bi nekk waaye taxaw taxawaay Nations Unies ci problème bi début ba léegi ak résolution yi ñu jël buñ ko appliqué woon peut-être tey duñu wax Nations Unies nag amul doole bu mu appliqué moom day ab day jël résolution waaye état yi ñooy daje indi seen doole boole ko ne bu dee réew mii lañ ko sant defu ko ñu dal ci kawam noonu la amee woon Kosovo noonu la amoon feneen ak feneen waaye yan état ñooy indi seen doole ci ci ci cas yu mel noonu état yooyu ñoo nekk ci gannaaw Israël ndax tey état jullit yi war nañ koo mën defal seen bopp mënuñu ko wala sañuñu ko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 dinañu toog di jooy di la waaye résultat boo moytul du gaaw a ñëw de kon ñu ngi feddali taxawaayu nguuru senegal ci ndigalu président basiiru Diomaye Diakhar Faye ni lañ ci mun ci taxawu suñu mbokk Israël suñu mbokku Palestine lu ci nguur doon def benn bu soobee yàlla ci jamono ji dinañ ci def lu ko ëpp fuuf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 yeggaguñu fu ñuy noppee donc fépp fu ñu woote ay ndaje ngir naqar lu xew fële tamit le président basiru joomaay wax mooy dinañ ko autoriser te gouvernement bi dina fi ñëw teew ànd ak yéen ñu manifester ko kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, di gërëm organisateurs yi di leen féliciter asalaamualeykum wa rahmatullah. du ñu nangu li Israël di def ci àdduna bi. Les Arabes pour le monde a libéré Palestine. Nous les Africains dinañ ko libéré. Allahu akbaru kabira. yàgg nañ fee toog di xaar jullit yi ñu leen di mbég di leen gudda di leen wéq ñuy jooy léegi nag xam ne mbéjum kanam ma nga koy fayal boppam commencé dana faj faj. Israël yàlla jëm kañ na. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بروح بدم نفديك يا أقصى vigilance parce que le problème est resté entier tant que Israël jógewul ci territoire yi ñu occupé à Gaza à Cisjordanie et à Jérusalem les musulmans continueront à se mobiliser pour que Israël donne le kiw dem na ci ñoom allahu akbar la ilaha illallah labbayka ya aqsa labbayka ya ma jàppale rek laa ndax xale la amu instant yi fu ma nekk pour ma lekk sax day garaaw